ñu ngi leen di jaajëfal di leen di nuyu di leen di char bu baax a baax a baax tey comme ni ma leen ko fas yéene defale tey damaa ñëw fii uniquement pour jëlal si leen benn sëriñ ñu koy tuddee Cheikh Moussa Ndiaye Cheikh Moussa nag euh, mu ngi dëkk fi ñu naan géejawaay pharmacie PAI bi euh, moom nag euh, yàlla may na ko lépp lu bokk ci wàllum ñaan mais nag yàlla may na ko lépp lu bokk ci paj surtout ñu naan ko pajum jinne ak rab Cheikh Moussa Ndiaye ñu ngi lay char di lay dalal ci 221 People waaw ñu di la ñaanal yàlla yàlla dafa la tawfiix ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di ñaanal jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na ko yàlla def ci yéen fu ngeen mën a nekk alhamdulillah. jërëjëf. jërëjëf euh, Cheikh Moussa Ndiaye ñu lay fay bu baax ginnaaw sa néew yu set yu sell yooyu noonu fas bi bon ni ko waxee woon présentation ñu am lu ñu bëgg nag waxtaane ko hmm. ñi ñuy déglu am loo xam ne dinañ ci jariñu fi may tàmbalee daa am lu niyo suñu biir réew mi te nuyoo bi gan gi soxlawuñ ko duñ sañoon dañ koy dégg ba fekk euh, ñu ciy def tawféex gan gi benn feebar bu ñu naan coronavirus bi la yéen am na lu leen yàlla dénk ñu bëggoon ñu waxtaane ci feebar boobu Cheikh Moussa Ndiaye waaw feebar boobu moom ëlëm na àdduna tasaaroo na it ci àdduna bi ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa mu jëleel nu ko fi ndax feebar la boo xamee ni nii bu doy waar la te it miinuñu koo xa yu mel nii feebar yu mel nii ah loolu la ñuy wax feebaru mbas épidémie loolu nag li tax ñu koy ñaan yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa daana ñaan feebar yu mel nii bu ñëwee muy ñaan yàlla yàlla musal nu ci feebaru mbas feebar boo xam ne day ñëw faagaagal ay nit faagaagal aw xeet loolu feebar bu doy waar la bu nu fàttalikoo ci sunu réew mi lu ñuy wax pest amoon na fi ci sunu maam ya nga xamee ni tësoon tëjoon na tasoon na kër yu bari tasaarewoon na dëkk yu bari rayoon na fi nit ñu bari te rey wu metti la ndax pest boo xam nii ku ko xas am da lay génne dëkk bi yóbbu la ci àll ba kenn du la jige même boo nit faatoo sax kenn du ko sang ñoo fa nekk ñooy seet nu gase suul tuus ko rek suut nga xam ngeen loolu dafay gaaw wàll te day rey nga gis ñoo xam ni ci ñàkk seeni famille yépp kon lu feebar bu doy waar la feebar bu doy waar la li ko jiitu mooy yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam da daan ñaan yàlla feebar yu mel nii yàlla musal ko ci mooy lan daana am ñaan gum daan ñaan ci feebar yu mel nii daana wax naan allahumma inni aouzu min al baras wal junuun wal juzaam wa min sayyil asqaam yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci feebaru baras waaye yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci feebaru ndof ñàkkum xel allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam waaye daana ñaan yàlla yàlla musal ko ci feebaru ngaana mu mujj nag li ëpp solo ñu toll ci mooy yal na yàlla musal nu ci bépp feebar buy ñëw di faagaagal ay nit loolu yaakaar naa ni lii ci la bokk faagaagal ay nit faagaagalu xeet mooy ñaan googu moo tax ci jamono bi dañuy wax ñépp nañ ko jàng di ko ñaan yàlla suñ dee ñaan yàlla ñaareel ba ñu fagaru tey boroom xam-xam yi gën a yokk seen gëstu ndax lu la bett man la ñu yokk gëstu yi ndax li koy faj mu ngi fi moom dañ koo xamagul rek moo tax chercheurs yëpp ñi jàng tubaab ak ñi jàng defi traditionnel nañu jéem a gëstu ci donte ñuy def traditionnel moom duñ leen ci boole mm-hmm. waaye man dama leen ci boole parce que gëstu gëstu rek la loolu nañ ci bàyyi xel ñaareel ba it mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci feebar buy wàlle nar a faagaag ay nit lim ci wax na leer dëkk bu mu nekk bu nit ñu génn di dem fent ba fa kenn dem parce que day wàlle te yaakaar naa ni suñu kaa Sénégal leer na Sénégal ñeent fi amagul te kenn dëkku ci réew mi dama ko jóge bi tamit indi ko fi bu ñu defoon li yonent bi wax ko gis. ñeent ci sallallahu alayhi wa sallam kenn dëkku ci réew bu baax it euh, daa am na ci niñ ko daan déggee ba mu dugg ci biir réew. waaw moom mhm. fi mu ñu ngi gën lu ko waral ndax que tiitu leen lu tax ñu ne mooy njàngale bi yonent bi sallallahu alayhi bu ñu ko defoon yaakaar naa du egsi fi mooy fa mu daal ñamu daal ñu toog ba loola bu doon semaine ñaari semaine un mois deux mois six ba loola jeex moo gën nga ñëw fii di wàllu xeet indi mu fitna am déet loolu la yonent bi saa sala bu ngeen gisee feebar buy wàllee bu mel nii bu leen dugg bu leen génn ku mu fekk xaaral ba loola pare te dëgg yàlla loolu xel nangu na ko wala nangu ko tey jii Sénégal yi yëpp kilifa yëg ñëpp bu dee demee ba conseil des ministres naan ministre bi du dugg bisu du dugg mais xam ngeen ni y problème. su demee ba ay cérémonie yi ñu daan am ñu naan nañ koy aj ak duñ ko aj yaa problème loola nu mu ko yóbbee ay étranger pourtant ñoo ko jëlee fële indi ko mais kon virus bi mën na fee bañ a dugg ba ñuy tiital nii te xam nga tiital nit dafa baaxul te lii tiital nañu ah ko wax tiitul rek ngaa dof parce que lu amagul benn saafaraam lu la bett man la wax dëgg yàlla bu ñu toogoon fii ak ñaari weer ñett gëstukat yi mën a gëstu lu ko mën a saafara mu jeex ñu continuer àdduna bi continuer mais lii ñu def nii. ci xawma ci turu liberté la xawma ci lan waaye daal indi nañu problème te yaakaar naa ni du leen jig du nu jig euh, ñu ngi ñaan yàlla nag mhm. yàlla mi mën a saafara yàlla nañ ko yàlla saafaraal jëleel ni ko ci àdduna bi ndax mbir la boo xamee ni moom kenn mucc ci ndax àdduna bi tey kenn toogul bii moo dem rek sa mbokk nga fa réew mi nga toogit mbokk jàmbur nga fa kon ay nit lañu ñu ñaan yàlla lii teyit nañu ñaan borom xam-xam yi nanu ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox na heure yoo xam ne nii heure nu mu ñaan la nanu ñaan jullit de ginnaaw bi mu defee li mu war a def la ca des nag na ñaan yàlla toog lu ci yàlla lu yàlla dogal nag mu xam ne noonu la kon loolu rek lañ ci doon wax ngeen bànn jërëjëf nu yàlla dogal ñu xam ne noonu la ni Cheikh euh, Moussa Ndiaye daaneele hmm. ba tax euh, damay am ci ponk bu ma dugg hmm. damay rappelé wu tuuti ci ginnaaw am na émission bu ma jotoon a def ak yow euh, waxoon waxoon nañu ci lu bokk ci rab ak jinne hmm. foofu damaa bëgg ñu dellusiwaat nga gën a leeral mu gën a xóot pour ñi lay déglu ndax daa mel ni des na ba léegi ci seen euh, dégg-dégg niñ ko waxee woon. pour mm. ñenn ñi gën a am lu gën a xóot lu gën a leer. Mm. ndax dooy xool daa mel ni am nañu ko gëm ak ñu ko gëm ñu dellusiwaat ci rab ak jinne. Mm. ah rab jinne moom faw ba kere àdduna tukki ñii dañuy gëm ñu duñ gëm waaye yéen ñi mu topp gëm leen te faju ci incha allah bu ngeen defee solution dina bu kenn découragé. waaye ñi nga xam ne gëmuñu ko it àdduna si ko am ñu yàgg dem rek yàlla mën naa def ñu dem ba xam ko parce que dem ba xam ko mooy dem ba gis teg ci sa bët wala dem ba dund ko boobaa di nga ko xam jàpp naa ne loolu doy na ci question ah nga xamee ne ñu ngi koy dund xam nan ko kon am na ñi nga xamee ne nee nañ loolu amul dundaguñ ko buñ dundee ba yàgg dinañ gis laa wax wala ñu dund ko bu boobaa ndax luy dabe la mën na laa dab. man naa demit dabu la mais nga dem ba gis ni lii moom wax dëgg yàlla musuma koo gëm waaye nag ah weddi gis bokku ci boobaa nooy def di nga ko gëm mhm. moo tax nag euh, question boobu ma tax ma ne jërul sori mhm. waaye ku mu dalagul boo nee awul it garaawul sax weddi moom du tee am na waaye kenn du la ci duma kenn du la ci xas ndax da koo xamul dundoo ko ndax jàngoo ko fenn mhm. loolu amul benn problème di leen ko comprendre mais ñi nga xamee ni nag wax yooyu Euh, bu ñi nga xam ne dañ koo am wax yooyu bu mu leen découragé bu tax ñu topp leen ndax nit ku nekk la ma màcc moo xam kon yéen ñi koy dund xam ngeen ko kon weddi ku xamul kooku ak weddeem kenn du ko jàpp li bon kay mooy weddi koo xam ni xam na waaye daa seytaane pour bëgg réeral nit ñi pour ñu ngeen nit gën a yàqu kooku moom nañ ko moytu. man de bëggoon xam euh, ñi nga xam ne dab na leen ak ñi nga xam ne amee nañ ko. nan lay nan lay mel ñooñu noonu mu dugg noonu. waaw xam nga am na ñoo xam ne dañ koy judduwaale am ñoo xam ne duñ ko judduwaale da leen di dab dugg leen am ñoo xam ne mën nañ dund ba am soixante dix ans soixante ans affaire bi door leen laal kon loolu la ñi judduwaale nag mooy en général ñi nga xamee ni seen maam cosaan la danoo ami rab ami xàmbu di tuur di ndëpp yooyu moom leer na ni vraiment judduwaale ku ci juddu rek di ko am. moo xam bu fës wala bu fësul bu soxor ak bu soxorul bu la yàqal ak bu la yàqalul yaa ngi dégg bu lay jox xam-xam ak bu la ko dul jox yëpp da ci am façon bu nekk a ngi ci ak bu lay ñàkkaloo ak bu lay jox alal bu nekk a ngi ci bu lay feebaral ak boo xam ne daf la yokk kàttan yëpp mu ngi kon am na yoo xam ne sax da jàppale ci sa njàng sa liggéey yëpp bari na façon yooyu am yoo xam ne day bàyyi ba nga am 13 ans 14 ans 20 ans mu fekk la feeñu ñii ay vingt cinq ans ñii bu ñu demee bay bëgg a dugg néegu sëy nag ci la yooyu feeñ kon juddu waalo bi moo ci ëpp ndax Afrique fii presque famille yëpp a ko am man ngaa topp boo toppee sa ñaari maam rek gis ci dara kon ñu ci bëri ci ñu juddu waalo mais rab yi comme danoon yeewu dañuy làqatu duñ la feeñu mukk dañuy xanaa bu buñ demee ba jàpp ni moom buñ la feeñoo doo leen mënal dara ñu commencé nag di def ci yow pression bu boobaa ngay door a nag commencé feebar commencé jóg di dugg ci maaman yi commencé am problème di waxtaan ak sa yaay di waxtaan ak say xarit bu yàggee nga ne lii lii lii lii di commencé wër léeg-léeg nga dem ñu ni kii def def la léeg-léeg ñu ni dëmm yee ko jàpp <laughs> léeg-léeg ñu ni du dëmm yi ñii kat dañ koo catu façon bu nekk ngay dégg waaye daal rab yi moom ñu ngi fii di topp nit ñi di yàqal nit ñi di leen feebaral di leen ñàkkal di leen ñàkkaloo sax jikko yu rafet loolu moom leer nañ. jërëjëf acca ñu jàll ci beneen ponk damay dugg ci cas yi nga xam ne bëri na jamono ji léegi ñu leen di wooy divorce. Mm-hmm. Euh, olof naan ko sëy tas. Mm-hmm. jamono ji léegi dañoo seetlu sëy yi moom ni ñu tase moom mel nañ tulleeg maam ana lan moo waral loolu Cheikh Moussa Ndiaye. waaw li ko waral bari na nag li ko waral bari na yenn yi ci yar yi la yi ci des it dana ànd ak ay yar yi mooy lan mu njëkkee ko ah yar. da ngay takk koo xam ni amul kilifa wala it nga dugg ci jëkkër joo xam ne amul kilifa wax dëgg yàlla loolu it pour affaire bi càll yoon dina jafe ci ñun góor ñi ak jigéen ñi góor ñu bari amuñu kilifa ku leen neex rek lañuy dugg jigéen ñu bari it amuñu ku leen neex rek lañuy dugg akay ah loolu it du noonu bu njëkk dañuy sélectionné xam nga ñun ñi yar xar ay éleveur la xam nga dañuy sélectionné de <laughs> éleveur dañuy sélectionné meilleur mâle wut meilleure femelle pour lan mën a génn ay sampion ak championne nest pas mais tey bu fekkee loolu yëpp gisuñu ko ki yem a neex ki yem a neex ki yem a neex rek gisoo ci lenn lu dul àdduna ah du noonu. waaw sëy bi ko mën a sàggee noo bëgg mooy bu fekkee ne góor nga. da ngaa bëgg baat sa kër booy takk dangay seet koo xam ne nii ndeyam baayam a ko yilif dégguma booy takk jabar yow si ka ngay bëgg da koy xool ndax ndeyam baayam a ko yilif papaam papaam moo yilif baayam wala baayam moo yilif yaayam boo ko takkee soo ñëwee di nga yilif sa jabar parce que loolu loolu moo xew seen kër du dee contraire bi nag. moom bu dee contraire bi bu ko ñëwee fi nii moo ñëw bëgg laa yilif te yow sa baay moo yilif sa kër sa yaay est-ce loolu dina moom day ñëw bëgg laa yilif te yow doo ko nangu parce que loolu lan la yore kër gi baata fi am sa baba ko ce que loolu du am problème est-ce que du am problème laay wax rek. question moom lañ. parce que day am problème olof day wax naan dërëm ak dërëm ay ànd juróom ak juróom ànd. ñu tolloo mais fekkee ni seen ah léegi-léegi sax ci ëppante bi sax dina tax ëppante alal bi. mais est-ce que diine loolu la wax. déedéet diine wax ko diine wax ko loolu waaye da cee bokk parce que li ko yàq la ñuy laaj li ko yàq su fekkee ni kii daa am kii yow nga ñàkk pour nga yilif ko dina jafe de ndax. ku mel ni yaay xadijatu xam ngeen ni moo ëppale woon yonent bi saa salaam lépp mais daf ko nangu topp jébbal ko léppam loolu bareeti na bareetul qualité yu mel noonu nag bu ta buñ koy am rek boo kër jàmm fa mais ndax loolu tey moo am ci suñu jigéen ñi. bëgg naa koo xam est-ce que intérêt yi lan ci jamono ji léegi sëy yi kon. waaw intérêt moom sëy intérêt koy laal ban intérêt la nag. <laughs> mooy mooy moom intérêt koy la ndax mhm. yonent bi sax sax ne dina takk jigéen ngir lan ngir taar <laughs> ngir alal ngir yax bu rëy ba mu du dëgg ngir diine mais bu nee boo bëggee bi gën nag néer mooy tànnal diine ji waaye la ci des da nga koy tànnaat ah. mais yaay seet noo koy gérer nag <laughs> noo koy gérer di jigéen ñëw na ci yonent bi sax salaam ni ko yonent bi sallallahu alayhi dafa am ñaari góor yi may bëgg kii bari na xaalis daa mën a dóor <laughs> boo bi ne daal waaye kii de bëgg kii ku baax la waaye yorul dara maanaam dafa ñëw waxante ni ko diw ak diw ñoo may bëgg mu ne ko kii de yor na xaalis waaye loxo bi du teggee ko de day doole de kii it nag ku baax la waaye yorul dara yaay tànn nag yow jigéen gi gis affaire yi bu ni affaire yi intérêt lu dul intérêt amul ci àdduna sama ànd ak sax intérêt la ah. si intérêt ban façon intéret na bu mu ëpp bu kenn loru c'est ça le problème mooy wax ah, man loolu laa gis àdduna. baax na na euh, ba léegi yéen ñu topp euh, ak ak euh, Cheikh Moussa Ndiaye. Hmm. Cheikh Moussa nag comme ni ma leen ko mën a fàttalee di ngeen am ay contact ci suuf mais dama leen koy baamtuwaat ma fàttali ko. di ngeen jël numéro bii ñu naan 70 336 06 77 soit ngeen jël 77 656 72 01 ma baamtuwaat ko 70 336 06 77. ou bien 77 656 72 01 Cheikh Moussa Ndiaye dañuy dugg ci liñ naan les accidents ñu naan ko accident yi foofu yëfu ñaaw téef la mais léegi Cheikh Moussa Ndiaye dañoo seetlu ne accident yi bu la ci gën a garaaw bu la ci gën a metti nga ne lii la te ñun xamuñu lan moo waral accident yi lan la dañuy màndi soit dañuy nelaw wala li ma mënta wax lan moo ne ci biir accident. loo mënta wax. waaw man de ci côté bi may xam muy transport en commun xam naa ko transport en commun mm-hmm. yu bëree ngi ci facteurs yu bëree ngi ci ñàkk yar bi mu ngi ci ñàkk sanction yi ca war amu ci deuxième bi mooy oto yi bëri mbaaxul màgget na da ngay seen mu rafet ni ñu tëlee mu rafet mais vraiment baaxul tëli yi aussi yu bari am na ci beneen bi des ci boppam am na yoo xam ne vraiment réglé wu te yooyu dinañ ci joué waaye ci domaine bii may liggéey man ci wàllu rab ak junni yi xam naa ci accident yu bari yoo xam ni moom ñoo koy def. muy la yu bari laa wax junni yi dañ koy def rab yi dañ koy def loola. doxoon naa ko ci émission yi passé ci bi may duggee ci YouTube bi di ngeen ko gis mooy gis nga ñu baree ngi fii seen problème yépp mooy gént di accidenté benn facteur la gént accidenté gis deret yu bari nit ñi tëdd loolu dañ ciy liggéey bu baax a baax a baax parce que léeg-léegi junne yi nekk ci route nationale yi léeg-léeg dañuy soxla deret te soxlawul deret bëy soxlawuñ dereti xar soxlawuñ dereti nag soxlawuñ dereti ganaar xam nga lan soxla dereti nit lañ soxla naan ci ba màndi amaat doole amaat pouvoir gën a mën a taxawaat nekkaat xale am doole dem liggéey liggéey bi yëpp yàq ci kaw suuf non du mu jeex xanaa bu bu bu ku yëg sa oto bismillah li Yonent bi sallallahu alayhi wa wax bismillah ah bismillahi lazi alhamdulillahi lazi subhaana lazi saqara lana haza wa ma kunna lahu muxrinin wa inna ila rabbina munqalibun bismillah taal damal junni ju taxaw sa wet di ko mu dee day daw ko dina fa xaar mais su fekkee ne yow musique ata bi yaa ngi musique ata bi yaa ngi ci leneen yoroo njàpp doo tudd yàlla ah wax dëgg yàlla xanaa nga ànd ponk limaami junne yi lay encadré <laughs> loolu lay am nit di boo ba yoo xam ne ay junne junni ngan lan yor bu ñuy dem dana leen di ba xàllal ni ñuy xaalal président ak ministre noonu la am ay ñoom kenn du leen jiimee jigéen <laughs> am na ci di ay kilifa yoo xam ne nii kenn bant nga leen di kon accident yay li ci junne yi des bari na torop yàlla xam na ko ni bari na lool lool lool moo tax nañu vigilant am na ci yoo xam ne ni moom ñun sama benn xarit mu ne ma damaa dem ba may day daw fuuta dogu ma la mu mel ni démb rek suñu fàttalikoo. am na euh, am nañu benn cas boo xam ne Serigne Abdourahmane Tilala. Mm-hmm. di Serigne Waly bi. di Serigne ñëpp mën naa ne ñëpp gis nga démb daa mel ni accident bokk na ci li nga xam ne moo moo dëgg la moo tax loolu laa doon wax sama xarit bi day dawal te yoonu fuuta ba passé Linguère xam nga man <laughs> maa ngi dëkk boor yooyu fale su dëkk boobu mais suñu cosaan diggante njaayeen kàdd njaayeen farba macha allah li ngay rek li ko wër mu ne ma bi may daw ba àgg foofu boor yooyu xaaju guddi dafa jékki-jékki rek gis benn jigéen bu taxaw ci kaw tali bi taw bu jàng mu ne ko taxawal taxawal taxawal mu def baaji sëñ bi nee na ñun suñ kawar taxaw laa ilaha ci kaw tali de mu ci mu ne ma foofu dama faa ragal <laughs> ma ne ko dama bëgg bàyyi nga daw guddi lam gis ak jigéen ciy daw xaaju guddi jékki-jékki kaalaw taxaw ci digg tali bi muy daw lépp mu ñëw ba ñu saraax ci kawam léegi bu defee kut wala mënul saraax ñu ne doon nelaw te nelawul mu ne ma lii jaf la mu jekkaat ba yàgg demaat bay jub fuuta beneen jëm traversé waat mu ne ma si amul lu ciy solution ma ne ko del yor njàpp tey tudd yàlla mu ne ma loolu laay def léegi rajo bi la lañuy teg di tudd yàlla bu dara ma ne ko def ko tey boo ko manee ngay bañ a daw yenn heure de crime yi parce que am na voie yoo xam ne wax dëgg yàlla ñoom dañuy génn heure yooyu te bu la yàlla dogalee yoroo njàpp saw fit dëgërul xam nga fit day dëgër dëgg jommi gi déggati nga ko fi bu njëkkaat lu yëngu ñu ni da jommi nan waaye diggatoo jommi fit nit da koy téye nit da yor njàpp nit day déglu alquran yooyu force la yoo xam ne nii junne ji la nar a traversé di ko rey te dara du la ko mënal ay mbokkam it du la mënal Euh, démb soo ko démb bi xamul laa jaar bu Cheikh Abdourahmane Tilala bi ndax mbëgg jotut a mbëkkante kenn ah. waaw am loolu moom wax dëgg yàlla xaw ma lu ko waral. Mhm. parce que jotu may fa su boobu léegi maa ngi ci liggéey bi <laughs> daanaka connecté wu ba ci internet ci YouTube bi xool lu ko waral wax dëgg yàlla xam nga kon mënu ma ci wax. Mhm. waaye mën na nekk panne mécanique mën na nekk kuy nelaw ah mën na nekk rab yi waaye tout de façon man xaw ma xaw ma benn information ci accident kon du ci mën a sori waaye daal li ma mën a xam mooy. junne yi wax dëgg yàlla dinañ kar nit ñi ci kaw tali yi ginnaaw ñooy kar nit ñi ci mbedd mi te kar nit ñi ci biir kër yi di leen tiital ak waxantuma laa ko ah ah waxantuma laa nag route nationale di daw rawatina buñ soxlaa bakken laajoo ma Sénégal gii bakken yi bari na fi de ñuy rot rayante bi jàpp xale yóbbu ray jàpp daf jël dagg cëram ray koo pare dagg cëram gisoo ko bëri na fi bariwul. lu bariwul am ah, na jëbarikat yi jëbar yi bëgg <laughs> ñu fay leen ay millions nga bëgg a samp nit ci alal samp mbër samp équipe bu football ah samp politicien former borom alal. <laughs> mais yooyu yooyu du hasard mais ay bakkeni nit ay am na ci yoo xam ne waxu benn bakken waxuñu ko mais téeméeri bakken la ñuy boole rey door a seen njibar ga door a jàpp am na sëriñ yoo xam ne nii danaan téeméeri bakken laa wax seen njibar ga door a moo xam mag la wala gone walla liir tàmbale ko ci bu yaay ji ëmbee sax ñu rey ko ci biir ëmb mujj du nekk morne xam nga morne morne bu ñëwoon ci waxtaan ci wàllu armeel niiw yi nga xamee ni jibar yi dañ ko soxla waaye xaaral tuuti àgg mm-hmm. yi nga xamee ni jibarkat yi dañ koo soxla ak li ci ndiggul góor yi nga xamee ni jibarkat yi dañ koo soxla <laughs> ci nga xamee ni jibar baaxul ko ànd ak ñoom baaxul su ma nee jibar baaxul nag yéen ñii dem ci jibar it yéen a gën a bon waaw yéen ñii dem ci njabar yéen a gën a bon lu tax ngeen dem ci ci lu damay ñaan lu ji kee sama paa bi li te ak njabar la yaa gën a xam ne li muy def am njabar la. non waaw te léeg-léeg nag njabar dañuy mel ni Cheikh Moussa nag sol ngat nga yu ngand ponk li yére lay sol dara yu ngand yoo xamee nii dina wutoo ci Cheikh Moussa yi nga xamee ni rido yu fure yi la ñu yor non lu lu sérieux la parce que dañuy yor alal. alal ju mat sëkk parce que nit mën na ñëw léegi xëpp la cent millions wala cinquante millions wala quarante millions nga dóor ko teg fekk la ngay liggéey wut nga ay ay lieutenant yu ndaw ci biir yoo xam ne nii boo ñëwee da nga leen di partagé am na ci ñoo xam ne même wérdu yi sax dañ koy partagé léeg-léeg nga dégg ñaar wérdu yi ku ko wérdu fekk na ñoom ñoo def jeu bi leen a sas ay millions du duñ ko mën a defandoo nit dof loola nga naan sëñ bi dama doon woomu la waa del wér nangam rek <laughs> gis nga léegi yaa koy wert ci réseau am xam nga réseau ab réseau comptam lay dugg moo tax gis nga àdduna bii mm-hmm. ah, yàlla yàlla may lii ñuy wax ñu def ko ngir yàlla rek te yàlla buñ ci sos ndax ñun dañuy faj ci la ñuy liggéey di ko daj tuuseeg guddeeg bëccëg di ko dindi waaye liñ ciy daj duñ la ko wax waaye yéen ñiy dem ci jibar yi bàyyi leen xel jibar nag fii ci senegal bu ma waxee mooy sëriñ ci na leer koo ci jibar nga mën na du ma jibar sëriñ laa am déet baat bi bu leen réeral tey tey dina naqaree xam parce que jibar yi dañoo àgg ci waa alquran sax am na ñuy jibar mo yëfi fépp lay baxe de bul koo ko seen yoru sikkim yoru kaamilam ak yoru kurusam ak daraay weex jéedi jiite jàkka ji sax genn wàll gi yëpp ay jibar lan billaahi lazi maa ko wax allahu akbar <laughs> man kay armeel yi ñuy dugg ak xaw ma man xale yi ngeen di wax ci ñenn ñi jël man loolu yéemu yéemu man de yéemu ma. loolu dafa bokk ci njabar. loolu lan la ko ko mën a apporter bari na. comme lan. xam nga am na njabar goo xam ne bu nu ko defee ci ci ci ci armeel yéen ñii gént di di di nekk ci armeel yéen ñii gént mel ni da ngeen dee ñu leen di suul xam ngeen ni. loolu ab liggéey la fas lan leen seen yaram day diis mbër yi lu tax ñu di ko bëgg sportif yi aussi lu tax ñu di ko bëgg bëgg a takk nit équipe bi mais boo ko yóbboo ci armée la gis nga nit affaire bi war ko wala ñu yëpp war ko ci xeer <laughs> la sama waajo waxoon mu ne ma dafa amoon benn marché appel d'offre bu doon def fii yàlla xam na ko gré à gré la mujj <laughs> Sénégal gii xam nga gré <laughs> te te ci njibar lañ ko jaare de dafa ñëw ci duma wax xeet yu mbokk mu jox ko genn fas ni ko gis nga xeer lii teg ko ci xeer wu diis nee na ñu dem ba xam nga Cees boo ko jubee àllub kaaj ay xeer rek la xam nga gis nga molo yooyu nee na ñun ñaar molo bi at ñu di ko puus ci puus ba ne ko dégg ci kaw fas ci mu war ci kaw mu ne ma déglu ci idée de temps waa ji woo te kenn mënu lu gaawee nii waaw man sax damaa feebar sama yaram dafa diis xam nga lu ma bëggoon nga ñëw léegi léegi ma signalé affaire <laughs> te njibara fa jaar de xoolal kooku moo tax gis nga sëy yu bëree ngi fii njibara njibara ko sos moo tax bu njibar ngay toj mbir ma yàqu ngi fii du man mais njibara tax ñu fal la ko gis nga bu njibar ngay toj ñu lay dàq waaye lu dàq nga man dara sa ah duñ ko tuddee tubaab man sa capacité moo la fa yóbbu nga man ko bu la dàqoon tey nga dem fu ko gën mais tey jaay yii yi ngay gis nii moo tax moo tax ngëm yàlla jafe na de. Euh, bi jeexagul de <laughs> ba ci kanam. jërëjëf parce que euh, lii leen bëgg. <laughs> muy di leeral nit ñi liy njëriñ. Mm-hmm. waaye nekkuñu fii di wax sama maam fi man dama koo doon ci si ma doon ma dara man. damaa jàng xam-xam lii di faj xam symptômes yi ñu won na ko xam ni solution yi waaye ñu bëree ngi fii jibar yi nan dama koo donn foo ko donni tëdd guddi sam junni ji àndoon ak sama am ñëw ne la dama la ko sol jox la ko nga commencé def liggéey ne dama koo donn sa naa dem naa fii dem naa réew Afrique yi yëpp kuy mboytu leen nag ñuy dem jibar yi dem ci réewu Afrique yi parce que réewu Afrique yi am na ci ñoo xam ne sëriñu Sénégal yi ñoo leen gën a sérieux ndax li ñuy rey bakkan bariwul mais gis nga am na réew ñàkk yii yàlla xam na ne rey bakkan du dara ci ñoom léeg-léeg sax dañuy wax ni Sénégal amuti ay njibar parce que du ñu rey nit lu bari foofu moom rag rag <laughs> non sànni la benn affaire cort nga dee léegi balaa ñaari fan ñu ne dee na fekk na maa ngi doon wax ci wàllu man yi yaa ngi ko doon wax naan affaire gis nga moo tax ñi nga xamante ne bëgg lu yomb xale bu jigéen bu ñu gis rek ni dañuy sëy ak moom. buñ ko deful gis nga nit na téye li mu góor surtout góor jigéen nag def ndànk gis nga loolu julli yi dañ ciy def luy bona bonaw yow dafa la ko yow ndaw si waaye ku góor ki moo gën a bon du tudd benn réew mais réew am na réew boo xam ne nii gis nga jibar yi gën a ëpp foofu mànni yu lañuy gën a liggéeyee tey dañ leen fexe keneen nan ba xale yi dix huit ans neuf ans yi nekk ay caga di jaay seen bopp gis nga loolu. muy lu gën a garaaw. léegi nag ñooñu ay kàppoor la ñuy am xam nga gis nga kàppoor yooyu dañ koy parewaat dugalaat seen saat man nii ba nga xamante ciy des man nii expert boobu dañ koy jaayaat jibar bi pour am alal oui dañu ñoom alal mooy ji ñoom nga jox nga ko xaalis mu jëlaat kàppoor bi jaayaat ko jibar bi moom saa bakkan la ci soxla bu koy amee ba yóbbu ko ba def ci li muy def. balaa yàgg ñu ni dee na dee na feebar na feebar na wala xëy xëy ñu ni accidenté wala xëy xëy ñu ni biir baa doon métti wala xëy ñu ni bopp ba doon anamu dee na fekk na yow jënd nañ la ko mooy yoole na la xam nga yoole xam nga yoole yoole ñu nekk ci biir géej uh-huh. buñ ci ñëwee ci ndox ba bis bis ba ñëw ci géej ñu ni yoolee nit ba jàpp ko baree ko fa. incha yaakaar naa ni kon ñu yemale foofu. jërëjëf euh, Cheikh euh, Moussa Ndiaye émission euh, rek li duuf ci nag bi xajut ci li te waaxu gëlëm xajut ci pant rek dañ lay bàyyi nga tàggatoo ko beneen yoon incha allah. waaw ñu ngi leen di gërëm yéen 221 people parce que ñëwoon ngeen fi ñëwaat fi macha allah ñaan yàlla subhanahu wa taala defal leen tawfiq parce que lii dafa xew ci jamono te moom la nit ñi yóbbaale ci seen biir kër yi di ko seetaan loolu moo tax waaye ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla def tawfiq xale yu baax ngeen te yoru te li ngeen bëgg yàpp naa ni man li ma bëgg ngeen bëgg kon ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal leen tawfiq kon ñu ngi fii di nuyu waa Thiès te xamee ni fii laay baagandi Dakar ak Thiès di nuyu waa dëkkandooy pharmacie PA yi yëpp nag tàmbalee ci pharmacie bi nga xam mooy adresse bi. ak sunu njaatige yi yëpp ñu ngi leen di ñaanal di nuyu waa centre bi yëpp nag al afiya ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.